aousubillah min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa gurril mayamin wa man ittabaa siratahum bi ixsaanin ila yawmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk téléspectateurs yi seetaan gannaaw ba nu sante yàlla di julli ci sangu-sangu yi sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mbokk yi di amaat mbégte bu baax di ziarat mbooleem ko xamante ni yaa ngi seetaan télévision Futurs Médias di leen wax ne ñu ngi fii ci dëkk bu tedd bi di Daarul Moxti bu ñu nee Daarul Moxti nag ci jamono ji li ñu fi indi leen rek la muy màggal gi nga xamante ni ñu ngi koy amal ci ngir jëmmi maam Thierno Birahim Daamal Daaru màggal googee nag la ko waral du dëddu àdduna maam Thierno wala gane jamono maam Thierno déedéet daje gi nga xam ne daje woon na ko sëriñ bi loolee la taalibe yi di dajee fii di ko màggal ginnaaw ba mu ko wootee ci noonu ñu ngi fii ci dëkk bi bu ñu nee maam Thierno nag daanaka arab yi dañuy wax de tour de bu bëree la muy tegtale rek kon loolu am na njëriñ am na ñu naan ko Birahima Faati am na ñu koy wax Ndaamal Daaru am na ñu koy wax maam Thierno mu bëri woon ay tur yoo xamante ni daan nañ ko ko woowee mu doonoon jàmbaar doon ndaw teel a jox boppam sëriñ bi àndoon ak sëriñ bi sëriñ bi dénk ko liggéey bu réy bi nga xamante ni tax mu ne ko yow kat yaay sama loxoom day joor kon defe naa ne loolu jooju wax wax ju wax ju màgg la wax ju rëy la ku toll ni maam amee wax joojee waaye itam dénkaan li nga xam ne sëriñ bi dénkoon na ko bu ñu delloo ci téere yi gis nañ taxawaay bi nga xam ne da ko cee am ba ni ko ko sëriñ bi dénkee dem ñëwaat dara dara sikku ci dara manqué wu ci loolee nag kon day wane ne maam Thierno boo ko xoolee ci xam-xam di nga ko ko fekk ndax xarañte moo tax mu mën a matal loolu nga xool ci jukko da nga ko fekk waaye nga xool ci yar ak teggin gis ne noonu la nekk woon ak digganteem ak sëriñ yi kon dañuy wax li nga xamante ni moom noonu la def sëriñ Touba moom maam Thierno Birahim noonee la ko taalibe yi def moo tax dëkk bi tedd bi Daarul Moxti fekk nañ fi taalibe yi takkoo takk ngir ñëw di amal màggal si nga xamante ni mooy màggal Daarul Moxti édition 2022 ci noonu ñu ngi janoog kenn ci sang yi muy Seydina Ousmane Mbacke moom Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni ñu fas yéene ko ziar bu baax ci di ko ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xamante ni ñu ngi koy amal laata ñoo dugg ci waxtaan bi Mbacke dama lay nuyu bu baax ziar la jox la sa wàcc wàccuwaay bàyyi la nga yokk téléspectateurs yi seetaan. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi ziar mbokki jullit yi nekk Sénégal gi yëpp ak képp koo xamante ni bi yaa ngi teewlu wala ngay seetaan seen jëm yi ñu ngi lay nuyu di la sargal euh, mboolem jullit rek waaw. macha allah jërëjëf Mbacke kàddu yu nuyu am na solo lool xanaa ñu door ci waxtaan wi rek di ko tënk ci ay point bi ci njëkk rek euh, ban jàngat nga ñu mën a indil wala ak fàttali goo xamante ni dina ñeel taalibe ñu jariñu ci muy diggante Serigne Touba ak maam Thierno. waaw. Euh, ñu ngi jéggalu sax ci kàddu gi ndax ku ne xam na ni da ngeen ñëw ci ëttub Seydina Ousmane euh, ëttub Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni léegi la daal di dugg ci biir moo tax ñu sañ a ñëw ci suñu dal bi waaye bu nekkee ak doomu aadama yi rek foofu suñu yitte gi yëpp foofu lay nekk sëriñ bi def jotaay bu am solo ci gën ñoo dundalaat ku tedd ki rawatina ci digganteem ak maam Thierno Birahim maam Thierno Birahim nag neex ku neex a waxtaanee la ndax képp koo xamante ni bii da nga yaakaar Serigne Touba wala nga ab soppeem baax na nga xam ci moom dara ndax yoon wi borom daaru da cee bay waar woo xamante ni bii mën naa ne mooy numéro un jiitu ca kanam te loolu ku tedd ki moo ko ko tànnal maanaam moo ko moo moo ko ko moo ko ko jagleel. tàmbali ci ganek borom daaru ak li ko Mamour waxoon ci teewam ak mission bi ci war jàpp. borom daaru doon ko xam ne ku tedd ki moo ko yaral boppam lu ne ci moom moo ko ci def jàngal ko yar ko def ci moom loo xam ne mooy modèle bi nga xam ne mooy modèle yoonu murit loolu Serigne Mountakha yëkkati na ko ci kàddu dugg ci suñuy nopp wax ne ku tedd ki sax ëpp na waaye borom daaru mooy modèle bi nga xam ne képp kuy kuy kuy kuy ku ñu koo xamante ni bi daal mooy model bi nga xam ne sëñ bi noonu moo ko tënkee moo ko tëggee noo xam ne ab murit saadix wanabil doxinu borom daaru nga war a doxee maanaam euh, tarbiya ak tasfiya ba noppi euh, ba noppi ba noppi euh, jiital ak jaamu yàlla ba dara desitu ci waaw fonk liggéey xitma mm, ba tam ba dara desuti ci tamit waaw bis bi nag ñëpp xam ne ni mm, bisub cant la seen daja bu rafet booba nga xam ne ca bi sëriñ bi wàññee ca ca ndar woolu ko mu ñëw seen jotaay bu yàgg boobu nga xam ne sëriñ fàll moo ko moo ko tànnal njabootu borom daaru ci sëriñ moo daaw Balla ngir ñu koy fàttalikoo borom daaru ak euh, mbégte moomu ñu ñu ñu dundal ko kon bés bi kon dangay gis ne bésu yoonu murid gi yëpp bésub islam gi yëpp la waaw kon nag euh, yàlla nañu ko yàlla fayal moom borom moom moom borom daaru waaw xam naa ni daal waaw ñu ñu woyal ci. am na solo lool macha allah defe naa ne buñ ñu déggee laaj bi wala tontu bi leer na nañ ñi jëme ci maam Thierno ak sëriñ bi waaye ci beneen beneen ba tey ci maam Thierno ak sëriñ bi rek ndax ki nga xam ne ne ba mu koy dénk li mu ko dénk taxul ko woon mu nekk mag ci responsabilité bi nga xam ne teel na ko koo jox moom sëriñ bi. waaw euh, li ci gën a yéeme mooy ñu bari buñ nee mag ñi ku tedd ki euh, ba muy dem laataa muy dem. ci géej gi ak bi mu wàññee ñu ñu mu gënoon a taxool boo xoolee seeni at mën nañ ne taxu koo bari dangay xool borom daaru bi muy bi koy ko tedd ki dénk yoon wi ak njaboot gi mën nañ ne fanweeri atam la cay teg du bari kon mën naa ne kon uh, bëriwul waaye da ngay xool jom ji gi nekkoon ci moom ak uh, ak fit wi newoon ci moom ak ak ak yar gi sëriñ bi defoon ci moom ba mu matal ba nga xam ne maanaam njaboot ji la ca bi bëggoon ba mu ñëwee uh, wax nañ ne sax kaasuk ataay bi nga xamante ne bii sëriñ bi da ko koo bàyyi ba mu ñëwee nam ko ko fi nam ko fi bàyyi woon noonu la ko noonu la ko fi fekkaatee waa ba noppi nga gis borom daaru ñi mu yar ñëpp da leen a yar ci diine nga xam ne moom dañoo wax ne maanaam jàkkaam rek kenn daaw kenn daaw fa dugg di julli te yoroo yoroo am njàpp waaw loolu lépp dangay ngay gis ne maanaam lépp ci ak yar ak tàggat manam nekk murit saadix wa nabil maanaam loolu da gis ne borom daaru moom borom daaru maanaam moom la ko sëriñ bi jagleloon boo maanaam zaayiru sëriñ Touba mën nga mën nañoo wax ne borom mooy maam Thierno Birahim kon euh, ñamu defaroon te sëriñ bi dënk leen kenn ku ci nekk euh, kenn ku ci nekk wane ne wane na wane na maanaam kenn ku ci nekk daal bànqaas bu mag la ci yoonu murit ci wàllu ci ci wàllu yar ci wàllu diine ci wàllu ci wàllu nangoo liggéey ci wàllu ci wàllu ak taalibe ndax borom daaru li mu doon li mu daan li mu daan li diina gi daan bari bari lépp da ko boole woon ak liggéey Serigne Touba xidma boo xamante ne bi dara mosu caa mosu caa manqué jotaayam fi nga dégg ñu ne borom daaru moo wax baat bi wala nangam lu jafe la ndax ndax ay waxam bëriwut woon te te te bu masaana toog jàkkaarloo penk ma nga ma nga ma ngay saytu liggéeyu sëñ bi waxtu julli mooy tax mu jóg fam fam fam daan toog di saytu dongo yi nga xam ne dongo yi lu ñu daan def rek moo leen ci daan jiitu dañoo wax na sax ñam daan liggéeyloo lekk ak naan sax bariwul li ñu ko daan def ndax ndax ndax ndax ndax sóobu woon ci liggéey bi ak ak soo sóobin boo xamante ni bi raxuñu ko woon raxuñu ko woon dara kon yàlla nañu yàlla fayal maam Thierno Birahim euh, te yàggal fi njabootam te yàlla kàttan nañu ñu bokk ci euh, liggéeykatu Serigne Touba yi ci tool wi te ñu bañ cee gis suñu bopp te it ñu bokk ñi nga xam ne Serigne Touba da leen di gërëm euh, ci àdduna ak ak ak ak ak ak àllaaxira waaw te yàggal fi suñu kilifa yi nekk suñu kanam rawatina si Ahmadou Kara mi nga xam ne njariñam génn na kër Seydina Ousmane génn na kër borom daaru dafa daj adduna gi yëpp ndax képp koo xamante ne bi da nga ne ab Sénégalais la nga nga doon jullit nga ñàkk doon jullit tey jii nii Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni am na bakka feej bu mu la defal moo tax ngay gis sëñ bi mu am ay turandoo yoo xam ne ay chrétien lañ ay turandoo yoo xamante ne bi euh, neen xeet lañ te mosuñu koo teg bët xam nga cofeel mënu ta weesu loolu waaye tamit euh, cant gi daal dañ koy wees dañ koy maase la ñëpp rek waaw dañ ko sarale ak di jéggalu ci kàddu yu baax jërëjëf jërëjëf euh, li may tàggatoo mooy ginnaaw bu ñu ñaanalee sëñ Muntaxa ko ñaanal sëñ Basiru ak suñu kilifa yi nekk ci ci ci ci yoonu murid gi yëpp rawatina ci Sénégal gi yëpp Sénégal yàlla saxal fi jàmm yéenentu lu baax wax lu baax jëf lu baax li nga xamante moom lañ bokk muy réew mi la koy jëmale kanam kenn ku ci nekk rek war nga cee bay sawaar te di ko def te yàlla rek a tax te jëm cee jaamoo yàlla eh, ak njub nag dafa doon loo xamante ni bii maanaam ci ndaw lañ ko gën a taam ndaw ñi li may dénk sama bopp laa leen di dénk mooy li ci waayu góorgóorlu ci ak yàlla dana la ci dimbali ñi nga xam ne ñooy ay jullit lama leen di dénk di ko dénk sama bopp mooy nañ góorgóorlu ba fu toll nañu yor njàpp loolu dafa doon gàllaajub jullit loolu bokk na ci ndaw ñi li ma leen ciy digal ñàkk yor njàpp loolu moom maa ngi koy diggal rawatina soxna yi loolu maa ngi leen koy digal ndax soxna yi ci boppam bariwul ñoo xamante ni bii danañu saxoo njàpp fu ñu tool te loolu la ma ci jublu mooy kuy saxoo njàpp dana am barrière bu dox sa digganteek ak iblis ba tax na loolu kaaraange bu wér lay doon loolu dama koy denk sama bopp di ko dénk ndaw ñi ma ko ciy tàggate di ñaan Serigne Touba yàlla saxal fi jàmm si Ahmadou Kara yàgg fi loolu tax jërëjëf Seydina Ousmane Mbacke macha allah kàddu yi rafet na te leer def naa ne lii rek mooy màggal gi lii mooy réew mi itam euh, sunu sang yu baax yi saa bu ñu leen fekkee rek kàddu yi ñuy taataan ci ñoom kàddu yu njëriñ rek lay doon ndax seen maam yu tedd ya dañ ko fay baax a baax mbokk téléspectateurs yi ñii la ñuy ci yoo xamante ni ñi ngi fii dëkk bi di Daarul Moxti di dëkk bu maam Thierno di ngi ci màggal gi nga xamante ni ñaari at a ngi nii amul woon euh, ko feeñal ko bu baax ci seen ñoom itam daañ leen wane ngir ñu feeñal seen mbégte ci bis ni ñi ngi koy amal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.